2012 yaakaar naa ne Sénégal yi ci ak côté la ñu nekkoon bi mel ni lu mel ni bi mu ko dalee. Mhm. Euh, jàppoon nañ ne dina jàng ci loolu nag. parce que président Macky Sall moom moo ñu doon jàngal ci histoire Moussa ak na vraiment ci émission Walfadjri ci Sidi Lamine Niass. ñu jàppoon ne loolu rek war na mën a doy kii que bu jëlee nguur gi rek référence yooyu mu am vraiment war na ko mën a doy pour ku mu mën a mën a am capacité jiite réew mi. Mhm. mais malgré référence yooyu yëpp très wut ndax moom daal doy na waar. <laughs> ok doy na waar ñu ngi merci beaucoup euh, ñu di leen di. Euh, liiral la nga xam ne rek moom Juan Branco euh, nekk euh, ci bokk ci pool d'avocat Ousmane Sonko daal dina koy euh, yëkkati moom itamit comme rek comme toujours la nga xam ne rek daf koy daal di addu nax mi nga xam ne que ne le tribunal de Dakar après celui de Ziguinchor vient de trancher Ousmane Sonko peut et doit être candidat les pouvoirs annoncés ne sont pas suspensifs Il ne saurait faire obstacle à ce fait. Un peuple attend un homme. Un peuple va rencontrer cet homme, Monsieur Sonko, euh, pour euh, candidater. Euh, nous sommes à deux mois de rétablissement de la souveraineté du groupe du peuple sénégalais, malgré les interférences de l'Élysée, malgré les instrumentalisations inter instrumentalisation des parquets malgré les détentions euh, qui n'ont cessé de se multiplier nous sommes à deux mois de la liberté euh, nous sommes euh, à deux mois de la liberté il est temps euh, désormais euh, d'ouvrir la porte aux politiques de permettre à monsieur Sonko de faire campagne de présenter et préparer un gouvernement qui luttera contre la pauvreté le pillage des ressources la corruption mes, glo mes glorieux confrères ont arraché euh, ces décisions de roseaux euh, de roseaux voilà toujours craignant euh, de se briser rien n'est joué il faut désormais les faire exécuter s'assurer que le droit encore et encore sera respecté le 25 février 2024 je peux pouvoir être à vos je peux euh, je veux pouvoir tousser tousser en terre une terre qui la liberté je veux enfin prendre la main d'un homme appelés à présider vos destins maintient rek l'histoire est à notre mu nekk kàddu yi nga xam ni moom euh, Juan Branco dal dina ko yëkkati ndax mi nga xam ne que ne kat euh, tribunal de Dakar euh, daal dinay confirmer décision bi nga xam ne rek Ziguinchor jëloon nañ ko maanaam juge Sabassy Faye euh, jëloon na ko nee na instant bi nag Ousmane Sonko euh, mën na nekk li nga xam ne moom mooy candidat et que pourvoi maanaam recours yi nga xam ne euh, ñu ngi koy annoncé depuis ce matin loolu nag maanaam nekkul recours yoo xam ne dafay toog xaar. Euh, décision boobu li ndax décision bi dañ ko war a exécuter cela montre que ne euh, la décision n'est pas suspensive et que moom Juan Branco loolu daal di bëgg a xamle que ne kat mënu doon li nga xam ne moom mooy obstacle euh, ci boobu le mbir parce que peuple bi dafay xaar benn kenn te kooku li peuple bi dina ko rencontrer maanaam dina ko daal di gis et que Ousmane Sonko dina doon li nga xam ne moom mooy candidat dina mën a déposer sa candidature et jamono ci ñu ci deux mois euh, di waajal li nga xam moom pour dugg pour dem ci élection présidentielle yi euh, pour que peuple bi mën a au moins euh, choisir ginnaaw nag. jafe-jafe yi nga xam ne lycée bi mi ngi doon leen koy loo waaye tamit ginnaaw nañ doon utiliser li nga xam ne moom mooy suñu justice moom la parquet bi doon utiliser ginnaaw détention yi nga xam ne rek ña nga doon wéy di continuer Euh, ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy deux mois ngir am li nga xam ne moom mooy wàllum euh, liberté et que mi nga xam lekk ne kat euh, dina amal beneen porte boo xam ne dina mën a ubbeeku ci Ousmane Sonko ndax ñu ngi doon wax ci wàllum carrière politique am beneen buntu dina mën a ubbeeku ci mbirum Ousmane Sonko et que dina mën a battre campagne tamit préparer benn gouvernement boo xam ne dina xeex lépp loo xam ne wàllum ñàkk la maanaam wàllum pauvreté et que dina xeex lépp loo xam ne wàllum yàq la aussi rawatina suñu ay suuf si yi nga xam ni dañ koy jël euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, daal di koy jël def ko li nga xam mooy seen alalu moo moomeel et bi nga xam ne aussi nemmeeku nañ ko ci réewum Sénégal Ousmane Sonko su ñëwee ba teg gouvernement am loolu yëpp dinañ ko daal di euh, xeex bu baax a baax a baax et que mi ngi rendre hommage aussi ñi nga xam ne ñoom ay confrères lañ maanaam ñoom ay maître Clédor lii ak Bamba Cissé Bamba Cissé ainsi de suite ak maître Ciré Ly Fou ndax gis nañ si contentement bi nga xam ni moom itamit daal dina koy am euh, mu ngi leen di euh, remercier mi ngi leen di rendre li nga xam ne mooy hommage na ñu demee jëli la nga xam ne moom mooy euh, décision bi dem jëli ko waaye tamit indi ko am li nga xam ne moom mooy ndam waaye nag nee na jamono ji kenn jouewugul dara instant bi la ñu war a def rek mooy que forcer leen à ce que ñu exécuter boobu li décision jamono ji nag mën naa ne loolu moom moo war a nekk seen Euh, combat waaye tamit ñu fexe ba wàllum droit ñu daal di koy respecté euh, ci li nga xam ne mooy réewum Sénégal respecté waat ko et que 25 février 2024 euh, moom Juan Branco dina mën a ñëw nekk ci côté ñi nga xam ne ay confrères lañ nekk ci côté ñi nga xam ne ñoom ñëw bokk ci pôle d'avocat wu Ousmane a et que aussi dina mën a dugg si ci réewum Sénégal réew mi nga xam ne liberté 2024 dina fi daal di xeeñ bu baax a baax a baax réewum réewum dem Sénégal 2024 dina nekk. Euh, réew mu neex et dina mën a euh, maanaam euh, jàpp ci loxo ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko moom mi nga xam ne réew mi moom la daal di euh, choisir et que mi ngi ne que ne nañ jàpp rek histoire bi euh, mi ngi ak ñun l'histoire est à notre loolu nag mu nekk euh, ki nga xam ne mooy Juan Branco boo yëkkati yooyu le kaddu comme ni ma ko waxee tantôt rek ku nekk yaa ngi génn di def li nga xam ne moom mooy di addu jëm ci décision bi nga xam ne juge bi daal dina koy jël juge Ousmane Racine Thion daal dina koy jël ndigi tay daal di dugalaat Ousmane Sonko wala ordonné à ce que ñu dugal Ousmane Sonko ci li nga xam ne rek moom mooy Euh, liste électorale bi n'empêche nag coow li euh, bëri na lool lool n'empêche aussi ku nekk yaa ngi génne di wax que ne kat recours dina am kon victoire finale amagul mais. comme que décision bi jamono ji dafa favorable ci Ousmane Sonko on peut on peut dire que ne Ousmane Sonko moom moo am ndam euh, ci kaw ñi nga xam ñoom ñooy l'état du Sénégal juste balaa après ñu soog a xool ba xam recours boobu li nan lay daal demee comme que décision bi n'est pas suspensif nekkul décision boo xam ne euh, dafay daal di xaar nekkul décision boo xam ne dañuy xaar ba recours comme ni ko euh, DGE daal di santaane woon mu nekk ab benn prétexte boo xam ne moom la tegoon juste rek pour lank bañ a jox Sonko li nga xam ne moom mooy. fiche de parrainage ba tax na su amee ku nekk ci ligne bi euh, mën nañ koo jël way ta way laa tamit ñu daal di euh, wàccee li nga xam ne euh, moom mooy suñ ay kàddu ci kanam tuuti dinañu ubbiwaat voilà ba léegi mën nañ jël li nga xam ne mooy ki nekk ci ligne bi. mën nañoo jël ki nekk ci ligne bi ok léegi ci kanam tuuti dinañ am ki nga xam ne moom mooy Cheikh Cheikh Fall nekk photographe patriote nekk.